fidèle internaute bpactu point com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te fa seeni ñëwaat ak yéen ci seen xibaaru analyse comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen saa su nekk ba tax na nag tey jii li leen indil neexul lool ci xol nag seen actrice seen sœur seen lépp Marème Dial ñu gënoon ko ràññee ci série bu maîtresse d'un homme marié bi doon ndaw ca diwaanu Marodi TV boobaak léegi nag gis nañ ne jafe-jafe yu mu amoon na mu arrêté woon production dem jàll ca diwaanu Côte d'Ivoire ñu signal ko fa ab benn contrat mu nekkoon dans de très bonnes conditions saa su nekk mu doon nekk ah, ci réseaux sociaux yi di wax la ni génn na ci étape jàll ci beneen nit ñi nag wëgg ko lool ndax li nga xamante ne jotoon na ko joué ci série boobee d'ailleurs sax ñenn ci fan sami ñoo ko doon réclamer ngir mu defaat retour ci réewum Sénégal ah, jéem a waxtaan ak waa Marodi TV wala waa Evon te ngir ñu gis ko ci série sénégalaise képp koo xamante ni bëgg nga ko wala nga sopp ko rek bu yeboo nga daal di ko secourir ko ndax mi ngi nekk ci jafe-jafe yoo xamante ni tar na lool daanaka weer bi yëpp ñu nekk da doon faral di def ay publication di ci dut baaraamu tuuma ñenn ci kilifa yoo xamante ni jarul sax ñuy daal di tuddaat seen tur naka la gis publication yooye yooyee ñu ci bari daan ni dañoo piraate kontam ndax Marème Dial mi ñu xam mënul woon a wax kàddu yu mel ni rawatina muy attaqué nii di euh, nag yamul foofee moom Marème Diall gis nañu yeneen publication yi ci topp yëpp day faral di saaga ay nit di insulté wala sax mu yëkkati naka sudul noonee di ko wax ñenn ñi nag moom nga gëmuñu ko woon ndax moo defoon na ci ab publication a di yëgle ni Marème Diall bu fekkee publication yi muy gis ci compte Instagram moom moo ko def a jot na nag yoon daal di koy teg loxo wala ñu dox ay tànk jéego waaye bu fekkante ne dañoo piraté kontam nañ ko ko gaaw signalé ngir ñu dimbali ko ndax li ñuy gis ci kontam nekk na loo xamante ne yéeme na lool des fois sax mu dugal benn vidéo di def ay prier ak naka sudul noonu Mariam Diallo naka li findeel nii kenn piraté wu ko te kenn teewul téléphone am mooy que ne démb def na ab direct ba mu defee ab direct yëkkati ay kàddu yoo xamante ni benn àndu ci ak moroomam maanaam daal boo ko nee jàkk rek nga xool ko wala nga dégg na muy waxee nga xam ne Mariam Diallo mii nii boppam bi dafa daal di dem mu nekk loo xamante ni alerte woon na ko depuis le début ne woon na ni day jékki-jékki di amee ay dépression yoo xamante ni sonal na ko lool ba tax na bëggul kenn di juger lii nii di viom viom ni mu ko sentir rek la koy defee ah, jamono ji nag askan bi yëpp jugandoon nañu ndax nee nañu am nañu métti xol lool ci li dal Marème Dial d'ailleurs sax mami ko ca diwaanu femme chic daal dinay lancé benn appel ah, di wax ni bépp chic bu nekk ca diwaanu Côte d'Ivoire bu yeboo nga jóg ca ba muy teel jàppale Marème Dial ah, ndax ñoom sori dong la ñuy jooy waaye bu nekkoon ci réewum Sénégal waxatuñ ko benn yoon naka noonee réaction yi bari na lool te ñuy xaarandi famille yéen tànku jéego lañ ciy dox d'ailleurs sax ñoo ngi ñuy yëgal ni am na benn mbokkam bu jëm bu jël vol dem fekk ji ko ca diwaanu Côte d'Ivoire Adamo nag na def na ay investigation ndax Mariam Dial dafa doon dénoncé benn néeg bu ko violé woon ba mu nekkee tout tànk ba suñu joon yàlla tey jii loolu saay bu ñëwaatee ci xelam rek moo koy indil dépression yi muy faral di amee waaye Adamo daal dinay balancé turu ki nga xamante ni moom moo ko violé woon nee na nijaayam la nijaayam bu mu bokkaloon benn kër moom moo ko sàkku woon waaye saay bu toogee wéet xalaat ko rek chaque jour nii lay faral di demee ba tax na askan bi yëpp jógandoo nañu di laaj famille naka la ñuy def ba daal di jàppale Marème Dial suñu Marème Dial Marème Dial bi nga xamante ni donte yàggul ci télévision sénégalaise yi waaye liggéey na ci série bu maîtresse d'un homme marié li waral sénégalais yëpp daal di koy bëgg di ko ñaanal yàlla mu wér ak jàmm te naan cat du wees ak lu ci mënti am nañ jóg te ba muy gaaw comme ni ko aada moo waxee ak ñeneen ak ñeneen mami ko nag moom nee na lépp lu ci kentu lay kàttanam dina ko def dina jël famille Marème Dial rural bi nekk ci réewum Sénégal daal di leen di mettre en rapport ak yenn ci femme ci gi nekk ca diwaanu Côte d'Ivoire ngir ñu mën koo jàppale bu jaree ñu indiwaat ko ci réewum Sénégal sax moo gën ndax boo wéetee ànd ak ay jafe-jafe nekk ci réewum jàmbur tey ji lu nekk mën na laa arrivé ku gis vidéo bi ma Mariam Diallo def nga xam ni sonn na lool daanaka sax moom moom moo ko firndeel boppam nee na damaa sonn mënuma nelaw suba ngoon guddeeg bëccëg ah, pour ma nelaw il faut ma jël benn affaire ma daal di koy naan mbutal yooyee daal dina koy wane ci moo nekk ci butéel bi waaye lenn rek la ci firndeel ni benn ca butéel yooyee benn butéelu meew la bu muy faral di booleeg benn affaire ngir mën a nelaw ba yàndoor sinon du nelaw boo ko xoolee sonnu na paal na kanam gi changé ak yeneen ak yeneen yu ñu mel ñuy woote alerte ngir que Malem Dial daal di retourné waat ci réewum Sénégal ba faju ba noppi soog a dellu ci ca Côte d'Ivoire yeggale li nga xamante ni moom moo di carrière am mbokk yi nag ku nuyoo ku nekk di nga tàggoo li leen indiloon ci seen xibaar analyse jaajëfal leen ba beneen yoon